Mansour Aw maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay madame Ba. ngay historien université euh, Cheikh Anta Diop bu Dakar nag di célébrer centenaire u euh, ki nga xamante ne mooy euh, seen parent loolu jëm rek ci professeur Cheikh Anta Diop bu Dakar alors ñu reprendre excusez-moi Mansour Aw maa maa ngi lay fay. alors ngay historien université nag Cheikh Anta Diop bu Dakar di célébrer centenaire u parent wam euh, di Cheikh Anta Diop 21 ba 30 euh, décembre bi nga xam te ne moom la ñu dënmal ci lañ ko nar a def loolu yëpp ngir mën a révisiter waat li nga xam te ne mooy héritage am waaye lan la ñu mën a def wala lan la ñu mën a jàpp ci histoire u euh, Cheikh Anta Diop. man dama yàlla dafa def ci les ñi jëkk. di nekk ay étudiant Cheikh Anta Diop université de Dakar mu nekkoon suñu professeur euh, ci li ñu tuddee paléontologie humaine ak préhistoire africaine maanaam ci soqeeku àddina bi ñi ci nekkoon di ay dundu dundu mu di ay nit mu di ay gàncax yépp ak préhistoire maanaam suñu maamaat yi maamaat nga xam ne nekkoon nañu fii am na ay junni junni at gannaaw ñun loolu lañu Cheikh Anta jàngal ñu bokk ma bokk nag ci ses premiers étudiants waaye man mosuma jàngale université de Dakar waaye li Cheikh Anta bind li mu wax ak li mu jëf ci le plan politique man xam naa ko jàng naa ko nekk naa ak moom fréquenté naa fréquenté naa ko ba ni mu génne àddina ma bokk ci ñi nga xam ne ñoo ko accompagner denc ko ci ceytu lii ñuy def nii tey ci ci jamono bi lu am solo la ndaxte Cheikh Anta dafa am ay jaar jaar yoo xam ne ku nekk fi wax war na ko xam pour man di ci sukkandiku ndaxte moom ci bawal la juddoo dafa la jàng alxuraan jànge kokki alxuraan nekk ci dënnam mu dugalee ko tubaab jàng génn fii dem ci université France jàng fi ci université yi gën a kawe lépp lu du science lépp lu du xam-xam Cheikh Anta jàng na ko mu di science humaine mu di science de la nature lépp loo xam ne lii xam-xam la Cheikh Anta xeeñtu na ko jàng na ko kon nag ku mel noonu bu ñu toogee ba war di eh, célébrer eh, li nga xam ne mooy cinquième anniversaire am ñun dañ ci am satisfaction dañ ci kontaan wax ne ku nekk war na xam loolu ku ci nekk itam war na ci am taxawaay très bien alors lan la ñu mën a def mën a def rek ngir mën a sàmm yi tamit li nga xam te ne moom la fi Cheikh Anta Diop bàyyi woon ci côté politique comme science. ci côté politique man li may wax ñi nga xam ne ñoom ay cheikhiste la ñu woon man nekk woon RND mosuma bokk itam FNS mosuma bokk BMS waaye mag yi nga xam ne ñoo doon ànd ak moom démb ci FNS ak BMS. Euh, man dama leen a xam dañu bokkoon grand place di jàng ci ñoom ñu wax kenn moo doon Cheikh Anta moo doon liggéeyam ci réew mi RND bi ko Cheikh Anta di sanc man ak sama groupe ñu bari ñu xam ne ñun ñoo nekkoon woowoo nañu laaj ñu pour ñu mën a ànd ak moom pour créer RND waaye am na ay pàcc yoo xam ne yi gis-gis yi bokku ci woon ñun am na ñeneen ñu gisee waaye itam nag di mu taxalee RND jàpp nañ ci gis nañ ci doonoon dem di wuñu di ci wax itam di ànd ak ñi nga xam ne ñun suñu camarade lañu woon nga bokkoon ci politique démb depuis 1968 nekk ak moom li mu fi bàyyi sur le plan politique bari na lu am solo la ci xel ak ci xalaat ak li mu bind ñi nga xam ne ñoom ñoo di ses héritiers nekkoon ak moom. ci RND tey war nañu góorgóorlu ñoom seen bopp war a dajalewaat seen bopp pour mën a génne yëkkati flambeau panafricanisme ak li nga xam ne moo fi Cheikh Anta euh, euh, mm-hmm. xam ne dañoo jàng ci moom lii li mu bind ak li mu tëral ñu war itam dem di gëstuwaat di seet li mu fi bàyyi woon ndaxte li mu fi bàyyi boobu léegi ëpp na Euh, cinquante ans ëpp na juróom fukki at te science dafay dox science dafay judduwaat am ay renouvellement li mu fu bindoon bàyyi ko wala ñu ko seet seet ñu koy mëngale ak tey jii nii les recherches scientifiques yu indi moo du loo xam ne lii liggéey yu am solo la itam man loolu may sawar message Mhm. alors leneen lu jëm euh, ci ndaw ñi ndax gis nga ni euh, ñoom ñoo ngi topp ay tànku Cheikh Anta Diop. ñoom topp ñu jeunes topp ñu Cheikh Anta xam nañ ko nii rek danañ ko woy ci musique bi euh, danañ ko wax nii mu nekk seen référence waaye ñoom gëstuwuñu li ñu war a gëstoo Cheikh Anta Diop. Mhm. ñu ko war a gëstoo ci dundam li mu dundee moom nga xam ne simplicité la àndal. malgré xam-xam bi ko yàlla euh, def ci moom ñu sol ko mu nekk ci moom lu mu gëstu jàng rek la mës a féetee te tey jii nii xale yi ñi ci jàng yàkkamti ñu gaaw génn yàkkamti nañ ci wàllu politique pour toog de sorte que topp ñu Cheikh Anta Diop ku ko topp da xam ne yow da ngay wëy di seet di gëstu di jàng am nag dund boo xam ne bii dund bu simple la mën a jëriñ sa réew mën a jëriñ affaire yi itam man loolu laa leen laaj xale yi ñu góorgóorlu xam ne que Cheikh Anta li mu doon wax li mu doon jëf c'est pour ko continent bi mën a jëm kanam mu mel ni nag at gu jotee rek dañuy at gu nekk rek dañuy def ay conférence euh, dem dem ci ay euh, def ci ay thème euh, ndax warul jot nag ñu indi ay innovation yu yees ci wàllu boobu innovation yi war na man yàgg naa di ko wax bind naa ko waaye nag fekk dëkk bi wax fi dafa jafeñ ndax duñ dul déglu benn ñaari bind fi joxe itam jafeñ la fii li ñu doon dul liir waaye li ma doon wax démb ak tey di ko war di fàttali moo di ne Cheikh Anta war na am su lu ñu tuddee un itinéraire de vie sur le plan touristique léegi am nañu ministère de la culture et du patrimoine Cheikh Anta patrimoine Afrique la dafa sax weesu Sénégal kon na ku mel noonu fi mu dundee fi mu juddoo ci Jurbel fa mu jàngee daara su mu demee mu di kokki su mu ñëwee dund fi nii mu di réussite ci Medina ni mu dunde woon ak su mu nekk woon ci Fann résidence ni mu liggéeyee ba ni mu génn ci IFAN ci laboratoire ba nga xam ne moom dafa moom moo ko monté de toutes pièces góor góor lu nekk mu dugg ci génne ko indi ko ba defar laboratoire bu di laboratoire bu am solo tey jii war nañu sur le plan touristique au niveau national au niveau africain panafricain mu am un circuit touristique boo xam ne bii dañ nit ñi dañ koy def di xam kan mooy Cheikh Anta li mu fi bàyyi ni mu nekk ni mu dundee dana tax nit ñi gën a delloo seen xel ci moom seet ni mu nekkee woon ak ni mu dundee mm-hmm. moom dafa dund pour amal njariñ askanam am amal njariñ Afrique loolu moo tax fépp foo dem itam nii dañ koy respecté di ko rendre hommage. alors mu am benn panel nag jëm ci thème euh, sortir des sentiers battus muy examen boo xam te ne ñoo ngi koy def euh, ci œuvre euh, Cheikh Anta Diop ajuma ji lay doon ci musée Théodore Monod bu IFAN thème boobule ban jàngat nga ci am. mais thème am importance la man ba ma koy wax ay jamono ëpp ne dix ans ba ma ko jikkee wax

l'âge de ces instruments de mesure ay nattkat ak li ñu koy nattee la am science li ñu ko doon nattee démb bokkul ak tey li ñu koy nattee li mu taxawoon démb bokkul ak tey ni muy taxawee kon yow boo ne homme de science nga universitaire nga da nga war a ci li nga xam ne moo di les outils modernes ak les connaissances modernes pour dellu seet charte yi mu bindoon ñu seet naka lañ ko mën a dekkalee bi nga xam ne waxoon na ko nit ñi weesu ko ci lii wala ci laa ñu war ko yeesal loolu bu ñu deful loolu ñun intellectuels yi naan Cheikh Anta Cheikh Anta Cheikh ko bàkkoo rek mais ñun liggéey bi dana def suñu loxo. très nekk na mm-hmm. thème boo xam ne thème bu am solo la. Mm-hmm. man xaw ma sax ne euh, amoon na loolu programme nañ ko waaye insha allah man wax naa ci bind naa ci fas naa itam bu ma ko yàlla mayee teew fa. déglu indi li nga xam ne man loolu laa wax loolu laa bind. alors ban message nga am rek pour lancer ndaw yi nga xamante ne daanaka ñoo fi ne. mais ndaw yi dañu war a dellu seen xel ndaxte Cheikh Anta dafa won moom lan mooy yoon moom utuloon dara utuloon nguur utuloon yenn bànneex yi jàng la ut xam-xam xamale Cheikh Anta ci loolu la nekkoon. kon nag jeunes yi war nañu xam loolu bàyyi ci xel góorgóorlu ñu tan ci fànn woowu waaye jeunes yi yàkkamti nañu egg dootuñu sax déglu l'héritage des anciens dañu fooy très bien renouvellement des générations renouvellement des générations renouvellement des générations am de manière automatique dafa mën a am l'intergénérationnel ñi fi nekkoon démb ak ñi fi nekk tey ñu mën a ànd nekk benn ñuy weccante xalaat mag ñi di sukkondiku ci xalaatu ndaw yi ndaw yi di xalaat sukkandiku ci xalaatu mag yi ñu revisité Cheikh Anta xam nañ dafa am ay xam-xam yoo xam ne yii xam-xamu démb la ñoom moom dem tant que sukkandiku ko ci loolu pour sukkandiku ci loolu faw nag ñu dellu gannaaw taxaw ci jàng ko xam ko bu dul loolu rek tëjax tëjax rek mooy am tëjax tëjax nag moom xamul kenn xamul ci lu mën a indi waaye lu mën a indi loo xam ne lii lu baax lu mën a semble kon def ndànk dellu seen xel jàng jàng jàng ku mel ni Cheikh Anta nekk na un modèle boo xam ne bii boo ci sukkandikoo mais danga nga mën a tabax sa réew très bien Mansour Aw jërëjëf may fàttali rek ni historien nga maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax waaw jërëjëf madame Ba waaw jërëjëf madame Ba waaw